asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu awnaka yaa muin wa bika nastain wala xawla wala xuwata illa billahi aliyil azim mbokki jullit yi mbokki taalu yi fu waay mën a nekk te ñuy bàyyi xel ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar te di leen balu àq te di leen bal àq ah, di jiital ci nuyoo beeg ziar bi sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba mu yeggale mbooleem naal mu naa la maam ju tedd jaba naa te suñu borom may ñu ta fexe ànd koog moom bu ngeen gisee nag suñu toogaay bi ah, mu mel ni nag am na ah, kàddu yoo xamante ni jóg na bàyyi ko ci suñu jëwriñ di sëñ Yuusu ñu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ah, mook mboolem ñi nga xamante ni ñoom la àndal liggéey bi di ko wax nag dégg nañ ko bu baax a baax fas yéene nag ñun soxna yi suñuy taxawaay nag ñu fas yéene taxaw nag ànd koog moom ba lépp jeex espace bi nga xamante ne moo ci njëkk muy espace soxna Khadija euh, njiitul soxna amiloo moom dina wax ci kàddu mboolem soxna yoo xamante ni ñu nekk ci espace boobu moo am nag beneen espace boo xamante ni euh, mooy xale yi nga xamante ni ñoo nekk ñoo digg doomu muy espace euh, soxna Fatima ki nga xamante ni moo moo leen di waxal mooy soxna maam Jaara Bousso Diouf waaye xale yi des ñu gannaaw benn yoon ki nga xamante ni mooy espace soxna Fadja Mbacké ki nga xamante moom mooy li waxal mooy soxna May Ndiaye euh, mu euh, bu ñu noppee nag daal di jox ki nga xamante ni mooy soxna maam Diarra Diop mu wax ci turu mbooleem soxna yi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew ñëpp. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala barakaatu. Euh, fas yéene liggéeyal sëñ Touba ci ndigal li nga xam ne tukkee na direction général Euh, ci njiitul euh, sëñ su Diop ñu koy ñaanal nag fan wu gudd ànd ak wér yéen bu oyof tooy euh, jëm ci bis bu màgg bi nga xam ne moom lañu ñu muy bésu ñu ànd dem ziyaara ji sëriñ Touba sëriñ Mountakha mu sëriñ basiiru Mbacké muy bis bu rëy ci ñun nag di bis bu màgg ni ma ko waxee tax ñu di ci woo mbooleem soxna boo xam ne bokk na ci daara isbu tarxiya nekk na ci espace culturel soxna jaara buso yi nga xam ne ñoo ëmb espace culturel yi fi soxna ay satu lim yëpp kon fu fi soxna mën a ne rek euh, ñi ngi lay woo woole ci ànd pas-pas bokk pas-pas jógandoo euh, songandoo ziar bi kon ñu xam ne jigéen moom euh, mës sa des ginnaaw ci lislaam ndax ba suñu yoneen sallallahu alayhi wa sallam wootee jigéen ñi dañoo wuy ji naka noonu bi sëriñ Touba mm, wootee jigéen ñi dañoo wuy ji kon nag noonu lañu ñu fas yéenee jóg ànd ak mboolem kuy jigéen kuy soxna ci daara Hizbut Tarqiyyah topp ci ginnaaw góor ñi ñu àndandoo wuy ji ci ziar bi euh, suñu jëwriñ euh, woon sëñ Atou euh, duñ ko mën a bañ a tudd yàlla suñu boroom dolli yërmandeem yokk koy xéewalam euh, daan nañu joxañ ay jigéen yu màgg ci lislaam daan nañu tudd jigéen ñi nga xam ni sax dañ leen tudd ci euh, alxuraanul karim ñooñu la ñu daan joxañ ñu wax ne ñun nañu jël suñu bët teg ci ñooñu euh, daan nañu tudd soxna yu màgg ci wàllu lislaam ku mel ne Sumaya mi nga xam ne moom la njëkk a faat ci diine ji waaye ku mel ne soxna Khadija mi nga xam ne euh, moo njëkk a dugg ci lislaam daan nañu woon joxañ ay jigéen ay soxna yoo xam ne ci waa kër sëñ Touba yi euh, tàmbali ci soxna Jaaretulaa waaye daan nañu joxañ ku mel ni euh, soxna Musli soxna Fatja Mbàkke waaye ba ci soxna Maymuna Mbàkke ah ku jël sa bët teg ci ñooñu yaakaar naa jóg ziyaar ji sëñ Touba du la jafe kon nañu jaajuwaat nag nañu jóg nag takkaat laxasaay topp ci ginnaaw góor ñi nañu fàkku lépp lu ñu am lépp lu ñu am rek nañ ko jël jébbal ko sëñ Touba ndax loolu mooy li ñuy jariñ fii ak fa ñu jëm bu ñu desee dara bu nangoo des ginnaaw benn yoon ñuy wax suñu jëruñ sëñ yu su ne soxna yëpp ñu ngi ci ginnaaw ñu ngi ci ginnaawam fu ñu woo ñu wuyu ko fa di ko sant nag ci lii nga xam ne moom la ñu tànnal muy bés bi di bisu takkaat laxasaay di bis boo xam ne bis boo xam ne bisu feeñ la bisu feeñ ci xarib lislaam kon na ñëpp jóg feeñ ci bu kenn nangoo des ginnaaw ndax ku ci feeñ da nga feeñ ba faw waaye ñuy woo nag euh, suñu dëkkandoo yëpp dëkkandoo yëpp ñu ngi leen di woo ñi nga xam ne ñoom la ñu dëkkal fii bu dee si kàcc ci isbitarxiya bi wala bu dee ca koñ yi ñu dëkk di woo euh, suñu partenaire yëpp di woo suñu soppee yëpp di woo suñu am di jàmm yëpp bàyyiwuñu kenn na ñëpp ñëw ànd ak ñun bis bi ndax bis la bu màgg la ci ñun bis la bu rëy bi ci ñun bis la boo xam ne bisub confirmation la kon ñu ngi ciy woon ñëpp suuf kon nag foofu lañ leen di soññoo ñëpp yaakaar naa waxi assignation moom kenn waxatu ko ndax kenn ku nekk sa soñ la jox waxatu ñuy waxam xanaa ñun kay li ñuy wax mooy kenn ku nekk lépp loo am rek nga nga jël ko jóor ko ñëw jóoral ko sëñ Touba nga fàkku ba set wicc bul dese dara kon foofu lañuy ñuy waxee teeru gan ñi dalal leen tëral leen ànd ak ñoom yenn yendoog sëñ bi bu ñu fa jógee daal di dellu siwaat kon kàddu yi xeebu yi lañ ci amoon ci liñ ciy sànni Euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ba ñu jëlee suñu nuyoo sof ko ci suñu nuyoo kilifa boobu ci woote gi nga xamante ni ni ñu ko waxee suñu jëwriñ sëriñ Youssou Diop woote na ko jëm ci ponk boo xam ne bu am solo la rawatina ci yoon bi ñu nekk mu yoonu murit muy ab ziyaara ziyaara boobu nag. ku ne xam na ne dañ cee am ab cër bu rëy rëy rëy ndax njariñ li daa bari lool mu mel ne njariñ li ku nekk yittewu nga ko mooy mag wala muy tànk looloo tax ñun ñi war ci am ab waar bu am solo boo xamante ni fas yéene nañ koo bay ndax ni ñu ko waxee rek duñ wax ba jeexal te tudduñu ki nga xamante ni mooy suñ jëwriñ sëriñ Aatu Jaañ mi jiitu ci àjjana ndax bi mu ñu sosee ñu doon ab espace mu tuddee ñu soxna Fatima wax ñu lu tax mu tuddee ñu ko ngir ñu roy ci moom waaye itam waar wi nga xamante ni moom bayoon na ko ci yoonu lislaam mu bëgg yoon woowu ñu nit tam ñu fas yéene ko bay ci yoon wii nga xam ne moom la ñu nekk muy liggéeyal Cheikhul Khadim kon am nañ ci cër bayit bi itam daan na bari lu koy baamtu looy muy adxaltu nafsi wa jamia ahli mooy saa suy dem day jiital li nga xamante ni mooy ak njabootam ndax njariñul addiya eh, sëriñ saaliw tënk na ko ci ñett te neewoon na waxuma mooy njariñul àddina addiya waaye bokk na ci njariñul addiya day def fu dara nekkul woon di yokk lu bariwul woon di barkeel lu bari te barke moom ndaw yaakaar naa mooy li nga xam ne moom la gën a soxla kenn ku nekk moom ngay ñaan yàlla looloo tax bi nga xamee ne eh, sëriñ Youssou woote na woote bii su sunu xel day daal ci dem rek ci ne dañoo war a yokkaat laxasaay fabuwaat waaye fas yéene ànd ñun ñëpp ci mag ñi fii ñu teg seen tànk ñu teg fa suñu bos ndax buñ demee mën ñoo yóbbaaleel te ñaan nañu yàlla ci kanamu sëriñ Muntaxa ñi feeñal fa suñu yéene feeñal fa suñu pas-pas yóbbaale fa li nga xam ne moom la ñu bëgg te mooy liggéeyal Serigne Touba àddina ak àllaaxira barke ak njariñul ziyaar yi nga xamante ne Serigne bi wax na ko lépp ñi mën a bokk ci ñi nga xamante ni noonu lañ ko am. ñi ñaan suñu borom rek ñu yegg ci ak jàmm egg ci ak bismillahi rahmaani rahim gën ci ak alhamdulilahi rabi alamin yéene gu rafet giñ ci am yëpp suñu borom daal koy mottali kon ñu woo ñëpp te tàllal loxo ñëpp te ñaan suñu borom mu yeggalañ ci jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bu baax di ziar di jiital ci nuyu bi saaxibul fadila sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal yi nga xam ne fas yéene ko liggéeyal maamam ju sell jooju Cheikh naa Cheikh Ahmadou Bamba mu eggale ko ànd ko ak ju jullit yëpp tey nag suñu jotaay bi comme ni ko suñu kilifa yi waxee rek suñu yaay yi fi toog dañoo ñëwoon pour woote ci ziar bi nga xam ne suñu jëwriñ Serigne Youssou Ah, jottale nañu ko ñu war a ziyaare ci Serigne mun Mbacké di ñaan nag di ci woo xale yëpp ndax ku ne xam na ne xale tamit lépp loo xam ne mas nañ koo def ci lislaam wala muy lu baax rek fépp fu mag ñi taxaw xale yi bëgg nañoo taxaw foofu te ndaw dafa doon loo xam ne dafa doon lu metti ci dund ndax suñu borom ne dañuy gis ndaw boo nekkee boo tollee ci jamonoy ndaw lenn lu nekk day jug fëkk la pour jël jëmale ci boppam ndax seytaan dalay soxla lool waaye nag ñun ñu bëgg a doon ay ndaw yoo xam ne dañuy liggéeyal Cheikh na Cheikh Ahmadou Bamba ba xëy nekk ci ay mag ba wàcc ci liggéey loolu lañu ñaan moo tax ziar bi fépp foo nga xam ne mag ñi woote nañ ko taxaw teg ko foofu ñun ndaw ñi teg nañ ko foofu di ci woo mboolem espace ko képp koo xam ne yaa ngi bokk espace soxna fajja di la yëgal di la woo ci ziar bi di ci woo nag ñëpp ñi nga xam ne ni ay ndaw lañ waaye gis nañ ni ñu sopp daara ji lañ bëgg leen lool ñu leen ci woo bu baax a baax di ci woo mboolem élèves yi nga xam ne ñoo nekk fii ci daaru alimul xabir ak yeneen école yëpp ci réew mi asalaamaaleykum ajubilahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah yi ñëwaat ci li nga xamante ni ci la soxna yëpp jaar muy annonce bi nga xam ne ak woote bi nga xam ne suñu responsable moral def na ko muy sa njuusu ñuy wax ne bépp soxna boo xamante ni yaa ngi nekk bitim réew bu des gannaaw mukk ci li nga xam ne moom mooy ziar bi moom mooy xam nga nekk Italie moo xam nga nekk France moo xam nga nekk États-Unis ndax kat sëñ Mouhamadou Mountakha moom ñuy ziar yi yaakaar naa ne lépp loo xam ne ñu ngi koy jëf rek tuddee na ko ziar kon lii ñuy defaat nii dañ ay jéego yoo xam ne dañ koy jël mottali ji ko ca kanamam ndax keroog ba nga xam ne ñàkk nañ suñu wayjur wa ba mu ñu tiit lool tiit lool nag ba ngoon jotee mu jàkkaarloog ñu ne nu yuusoo ngi noonu koñ sëñ yuusu moomu moo jël njaboot gi dajalewaat leen fas ñu ànd ak ñun ci kanamu sëñ Mouhamadou Mountakha ñu ziyaare ko mu ne ko kat njaboot gaa ngi nii ndax ban waxee dañ man am ndongalaa boo xam ne maa ngi seen biir di liggéey kon nag ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn képp ku nekk bitim réew ak biir réew mi ñu ngi lay woo ci ziar bii nga xamante ni ñu ngi ko fas yéene def ci sëñ kanamu sëñ mun Mountakha ñu ñaanta fekk ko loolu te ànd ak jërë ngeen jëf euh, ci kàddu yi nga xamante ne yëkkati ngeen ko euh, kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, dégg ngeen bu baax a baax li nga xamante ne noonu la ñu wootee woote bi fas yéene wuy ji rek ni nga xam noonu la jigéen lislaam daan wuy ndax ñu fas yéene nag incha allahu rabbi buñ ko bu ko suñu borom dogalee buñ àggee ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai ñu ngi woo ñëpp rek fépp fu waay mën a nekk dañu bàyyi xel muy ci biir réew mi ak ca bitim réew bàyyiwuñu kenn yal na ci suñu borom yóbbu ak jàmm ñu ziar ko ziar boo xamante dina faw xam mboolem ziar boo xamante ni mos nañ koo ziar nag euh, foofu la ñuy daanee la kàddu di leen wax rek wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu